dal leen ak jàmm seen seen production di ñëwaat ak yéen lii di seen annonce analyse épisode vingt cinq ci série Babel sama gars yi nag lu doy waara ndax su ngeen bàyyi xel ki ni di euh, Bakir daal di nay commencé retrouver mémoire am bi ndax mën nañ ni kii di soxnaam si lay euh, laal na ko keroog carrément wax na ko ay kàddu yi nga xamante ne euh, daal na koy rusloo te xam na ni carrément saa lu nga ko wax dëgg la moo tax nag pour l'instant mooy commencé di faj ay buumu gàcceem ndax njëkk naa dem si xale bi lay di ko wax nag foo jëlee foo déggee que ni sama soxna. da doon jaay ay bijoux en di commencé di défendre li di euh, soxnam si léegi kii di Awa Cheikh nag mun nañu euh, laal na ko carrément mais mun nañu Bakir na moo nekk góor boo xamante ne mënul contrôler boppam te amul ay euh, kàddu si ay soxnam ndax soo xoolee dernier temps si ñaari soxnam si yëpp yëpp koy ji jaaxa na su ngeen bàyyi xel que ni keneen ki moom xool heure ko neex lay ñibbi si te defaratu ko sax mu lekk mun nañ loolu yëpp moom moo ko waral moom bi lay Bakir ndax yaakaar naa bàyyi na loxoom carrément ba soxnam si commencé ko rek motax mu tok ci kër gi moy ki di awasia ya. mais nak lu ëpp touru ba tax nak momi lay ya, commencé ya na jël défendre bofam té c'est normal sax ni ki so dem ba son nak il est temps woné ko té ya, sonu na carrément ci kër gi ba tax na nak mu ngi commencé défendre bofam di wax deug nak jëkër ji té mën nañu dembu laal nako carrément ndax lu ko wax rek yaakaar na góor buñ ko wax di nga xam sa bopp ni yow yaa roy kenn koo xamante musul dóor jigéen musul toroxal jigen, nga ne yow moom ngay roy alors que nag eh, c'est pas vrai man loolu moo tax nag kii di Mbacké mu daal di carrément contre lui ndax xam ni moom moo i toor tey rus na démb rus boo xamante xamul fan la koy lu koy si xale bi lay te tamit dem na si parko si beneen bi ba nak na nag démb daal fu mu taxawee sama gaay lu ko waral mooy ñàkk bañ a sa bopp te ñàkk bañ am kàddu sa kër ndax jabar kese fajul ay eh, soxla te tamit dóor jabar mus soxla te sama gaya yi na ngeen bàyyi loolu noonu ndax jigéen kenn du ko dóor lu muy si kër gi rek loolu noonu doy na dóor sama gars yi c'est pas la peine de les frapper sama gars yi jaa ngeen jëf one love anas anas la woon épisode 25 uh, si série Babel jaa ngeen jëf one love